xoolal Ousmane Tanor Dieng da koo laal ba faatu ba dee ci daya mu retourné Khalifa Sall Khalifa Sall ñu Khalifa laal ko ba tekketu dara ci réew mi ma ne ma ngay senaat nag naan ne ah ma doon ànd dëmm la de dëmm la de ku moytul da lay lekk ah ma doon ah candidat <laughs> Habib Ndour moom sa waay woy naa woy munul woy baat ba doxut aayut amul carrière ci woy munul way foroxut mu toog toog toog dem dem sàcc suufu jàmbur am problème ak waa ji xamul fu mu jëm moo ñu waxoon Tanor Dieng la ñëwaat nañu xalifa la tey ma nga ñëw nee na Amadou la ginnaawaat suba rek mu këri kooku c'est un chanteur wëndaalukat la tax nu tudd si waaye man sax man man man lu ma jàpp booy wax ku daa tekk dara gaa ñu ngi ñoo dem waaye Aby Ndour moom saay Aby on passe l'éponge dañuy dañuy Aby mag magam sax magam magam sax teg ko fi dara waxuma laa moom magam ci boppam magam magam manipulateur la magam tam noonu la mel de magam ñooñu ay ay charognard lañ charognard famille de charognard ay ñooñu lekkatu meddi lañ Youssou Ndour Abdou Diouf wax na fi Abdou Diouf ñu ne muus mu dem ci Abdoulaye Wade way ay baaxu maamam ñuy waxati mu jóge fa ne ko fa ñu ko neexu naqari xeex ko dem ci Macky Sall bërki dem rocc na nee na bàyyi na leen fa <laughs> ay soroñaar lañ fa bi soroñaar ñooñu dañoo fépp fu ñu gis lu ñu rey dañ koy xencu lu ñu rey ñoom médd rek <laughs> la ñuy wër médd médd lappi-lappi wër médd ñoom abindu noonu la ay médd lekkatu médd lañ dañuy wër rek wër dañuy wër médd rek <laughs> voilà fu nekk nii ñooñu yéen comprendre leen de fépp fu ñu dem waa ji bu deewu day torox lekkatu mbedd lañ duñ lekk luy dund fépp fu ñu dem kooku day perte fépp fu ñu dem dañ koy lekk boo leen gisee bu ñu nekkee ci tanoor tanoor daa mujjee dee ñu dem ci xalifa xalifa torox tekketu tus ña nge noonu <laughs> ñu dem ci Macky Sall Macky Sall amul troisième candidature bu fi toogoon troisième candidature Macky lay wax ñu ñuus maamam mu dem képp ku ñu fépp foo leen gis ñu dugg fa koo day yàqu mooy li ngeen di wax naan Youssou Ndour ku mu woy mu dee mais ñoom tamit ku ñu adhéré nga faatu wala nga yàqule ko yàlla nañ yàlla muccal te musal ñu ci ci Aby Ndour ànd ak ànd ak lu ñu bëgg yàlla na ci yàlla na ko yàlla gàllankoor ba ñun lu ñu bëgg abinduur Ndour bàncaane parce que bis bu abinduur Ndour ñëwee nan Ousmane Sonko candidat ak nga naa nga yàqu na maa la ci yàlla ni Ousmane Sonko du ci génn parce que ñooñu dañuy xencu mid ay saroñaar dañuy xencu mid tant que bo booy xeeñ mid la ñëw donc euh, vraiment ñooñu jaruñoo perte temps donc chers sénégalais di leen wax ni nelaw yi yàgg na toog bi yàgg na qu'est-ce que nous avons décidé qu'est-ce nous avons décidé de faire qu'est-ce que nous avons vraiment décidé de faire pour libérer le Sénégal libérer le Sénégal voilà donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax nii à bientôt incha allah bu wax ci lépp leeree ba ñu candidat yi feeñ ñu ne kii ak kii ak kii la bu boobaa dina defal background check mais pour l' instant moom on n'aimerait pas perdre du temps ci ay Amadou Ba yooyu de toute façon li ma ko dajaleel moom <laughs> am <laughs> xam nga xam nga xam nga ñaqum danq fanaano dank fanaano boulon bu amul air laa préparé am waaw <laughs> voilà waaw xamadu gelaajo bayaal bayaal dank central boulon bu amul air laa laa la waajal gis nga mu ko pëkkee ci sa tempaay <laughs> di nga wuri Macky na ko génne ma fa ma dugal maa ngi maa ngi maa ngi lay xaar rek maa ngi wëndeel di la xaar rek yow am maa ngi wëndeel rek maa ngi wëndeel gis nga bés ma fëggee affaire bi sax tempaa bi wallaay la azim laa la wax di nga bàyyal di nga dellu di nga dellu fa fa nga juddoo <laughs> man maa ngi ne tekk rek déggul wala maa ngi ne tekk billaay wallaay dama loqati sa ba loq ba loq waxuma sa baay de même sa maam gelaajo loqati naa ay dossier même sa maam gelaajo baata loqati naa ay dossier am da ngay dof dof rek bàyyal da dof dof ñëwul ñu ñëwul ñëwul maa ngi ci bopp koñ bi di xaar de pour l'instant day teel maa ngi doog di la xaar jàpp leen ne ñaari jabar la yor na ñaari jabar ñaari jabar <laughs> am moom comme ni ngeen di waxee rek boo <laughs> nee dañoo dañoo sànq Ousmane Sonko oh, ñaari daam ngeen di yor de ñaari fondation ngeen di yor am ñaari daam ñaari fondation continuité boobu day gën a sax tey ngeen tee de ñaari daam nag <laughs> benn ak benn mauritanien ñaari ñaari daam bi mooy. moom mooy première bi mauritanien bi mooy deuxième bi nag waaw mauritanien mi ngi ay seexam yi jigéen toog ña ngi gaa yaa ngay xaar <laughs> ña ngay sotti seen biñ de naan <laughs> première daam ñaar ñaari première <laughs> kii kii xëcc yuy wujje ci biir pale ba kii jaar gauche kii jaar droite mm-hmm. ay premier daam yi bëgg àdduna nag di meesu di emaayu yor seen i yor seen projet di dugal di day yulli seen ñap ñap seen maam yulli seen maam ba seen poosu bàyyi vide <laughs> daf leen rek daf leen daf leen ñaari première dame de ña nga toog di soccu di xaar jegale seen tànk laa la wax seen i mbokk yi ñëw <laughs> mauritanien yaa ngi fees dell mauritanien yi ña nga fees dell biir ca plateau ca immeuble ba ne ña nga fa fees dell <laughs> di làkk ah allahu ah, di làkki tukuloo ña ña nga fa de billahi wallahi ña nga fa fa dal di la ah, a nen dafa ko bandum allahu akbar ah, mi heɓi mi heɓi pouvoir mi miɗa heɓi pouvoir yo mi ñaamay mi ñaamay mi ñaamay ah, boo demee tam fële ca lu <laughs> mu lu mu tuddee almadi beneen jabar jaa nga fa toog moom tey respecte pulaar moom moom pël galay la <laughs> ko ay di war ma ne donc ne donc ban amadu amadu heebi haalis um koy jox allahu akbar mi de première dame fa de pale bi moom sa boo déggul pulaar mourtanien bi wala déggoo pël pël bu fuuta <laughs> dégg nga dee de ñaari daama fa toog teg seeni fondation kiinasayatayeto asayatayeto asayatayeto moom moom mooy bu bu bu Guinée waaw bili bili moom sayatayeto koy fees dal yor seen caay di naaw sayatayeto asayatayeto moom koy fa da ngay fayatayeto wala wala wala wala pëlu Mauritanie ña nga fa tey dëkk tey bale ba toj daf dugal leen ñooñu dugal leen bil dinañ yulli seen maam ba doolee ko doole barke alxuraan ca boobaa lay ko tan dina ñàpp seen maam ñàpp seen maam ñàpp seen maam ba xoolal boo leen gisatee bu di seen prix di wëndeelu daf leen daf leen teel leen amul dem leen dem ja amul dem leen barke alxuraan Macky Sall da leen doon ñuus ne noqu leen amul di leen leen ñàpp seen di ñëpp seen maam ay eh, bili ba sayaatay doo di ñëpp seen maam eh, eh, jabaram jooju nekk Mauritanie di ñëpp seen ñu taxaar seen maam ba dooleen ko dooleet barke alxuraan <laughs> gisagu leen dara <laughs> dem leen foofu laa yam ak yéen ba pour l'instant